suñu sëriñ suñu xarit suñu lépp muy sëriñ ab du Mbacké Gaïndé Fatma di wax ni sëriñ bi ñun fa suñu yéenee teg suñu tànk lenn loo xamante nii luy indi réeroo la ca man Mohamed Cissé man maa secrétaire général ca ku ma xam-xam ni nit ku am courage laaj samay idée su leneen nekkoon ci ma nit dama koy wax li liggéey bi laaj mooy wàcc dem ci terrain bi wax ak nit ñi surtout les primo-votants ak gën a concentré wu ci jigéen ñi parce que jigéen ñi ñooy gagné élection. waaye saa jigéen seen bopp waaye jigéen ñi. sëriñ bi maa ngi jégalu bu baax a baax a baax waaye yow xam nga ma bu baax que ni man du ma wax lu ba gëmul. jàpp naa ne ñëpp yoon nañoo ñëw tey teew roy ci initiative bi nga def ndax gis naa suma xarit daam sàmb mel na mi ngi woon ci benn mouvement soutien mais demoon na nga am xalaatu dellu si ko loolu wane na ne yaa ngi dugal sa loxo ci départ yu bari yi ndax parti bu fekkee da ngaa jëm ci ay élection ay départ di am rek taxawaay bi des naa kon nañu tàllal suma xarit yi nga xam ne ñu ak ñoom a àndoon di xeex ci élection yi ñu weesu muy législative ak local te tey ñu dem ci yeneen coalition jàpp naa ne fañ mën a dem yëpp mënuñu faa fekk lu gën li ñu seen ginnaaw kon ñàkk wax ak ñoom rek la kon maa ngi lay tàllal loxo di tàllal loxo kilifa yi taabal yëpp ñu fexe tàllal laaj ñooñu loxo te seeti leen na yéene la tàttagal parce que xam nañ bu baax sa diggante ak docteur Abdoulaye ñaan démb la woon ngeen nekkoon ay ndaw ba tey ji yàlla dogal kenn ku ne ci yéen président de la république wóoru la dénkal ay responsabilité ngir lan ngir dëkk bi kon loolu moo fi tax a ñëw di encouragé bu baax aussi ñi nga xam ne ñu ngi si sa ginnaaw parce que ñi ne sa ginnaaw defe naa ne li ma gis yow rek xam ko ci yow moo tax ñu ànd ak yow mooy kilifa nga gu mat kilifa waaye aussi am nga responsabilité ci réew mi te sant ki nga sant Mbàkke teewul ngay bay sawaar ci réew mi di def li nga war a def. su ma gisee nag dañoo ne dañuy élire ki nga xamante ni mooy amadu Ba pour mu nekk si ñu suñuy candidat en 2024 waaye delloo njukkal ki nga xamante ni mooy président Macky Sall. moom mi nga xamante ni lu njig njaag mooy njaag kon yaakaar naa tey mérito na jataay bu mel nii ñi delloo ko njukkal ndax nag jataay bi bu amee rek ginnaaw yàlla président Macky Sall la kon am na ci mbégte ak kontaante di wax jigéen ñi nga xamante ni tey ñoo ñëw fekk si fii Cheikh du ñoo ngi leen wax ak si leen jàmm ci parti bi parti moom ni ma ko waxee woon rek ku nekk ni nga ciy duggee rek noon nga ci takkee ñëpp ñoom ñoo ko bokk ensemble avec Amadou Ba fas yéene ko élire 2024 bu neexee yàlla dès le premier tour comme ni ñu ko waxee woon. dama jàpp ne képp koo xam ne nekk nga ci parti bi wala ci Benno Bokk Yaakaar booy yaatal demal xooli ñi nga xam ne nekkaguñ ci biir parti bi nga indi leen ci biir parti bi loolu mooy yaatal ma jàppu ne kuy yaatal organiser sab yaatal nga xool ko bu baax ci li ngay def monsieur président sag njaboot a ngi nii waa Bennoo Bokk Yaakaar di xëy ci yow Touba naqaree politique lool. ah man nag maa ngi sant Cheikh bu baax ci comme ni mu def nii ndax ñun dañoo am luñ jublu kon ku jëkk a wootee dajale mbooloo mi fas yéene li nu jublu. ñu am ci ndam ku ko jëkk a def rek ñun dañ lay sant bu baax di la gërëm maa ngi nuyu nag responsable yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen ubbi seen seeni loxo tàllal ko nit ñi ñu gën a ñëw ci parti bi comme ni Cheikh Abdou def nii mu def loolu laa gëm nii mu def loolu mooy politique politique bu nu waxee ñu ni sëriñ si daf leen ne noppalu déedéet du noppalu de ci réew mi la mbokk te nit ñi dañoo yaakaar kon tey bu dajale ay nit yu jógee ca saytaan ya dajale ay nit ñoo xam ne mësuñoo def politique dajale ay nit ñoo xam ne doonoo demoon ngir am lu leen métti mu dem jëli leen kooku jar naa sargal ci politique koo xam ne yaa ngi yëngu ci banque bi li ma waxoon nag ci sa kër defe naa ni moom ngay matérialiser da nga ni ma parti bi dañ ko war a animer mais animation bi dafa rafet parce que la présence de tous ces de tous ces leaders à vos côtés prouve que seule moo ñu mën a may fu ñu jëm bravo. élection yi ñu jëm élection présidentielle la ñu am benn candidat boo xam ni moom la ñu fi suñu kilifa tegal muy Macky Sall tegal ñu ko fi muy la président Amadou Ba ñu war a ànd ak moom war koo fal le 24 février te jàpp naa ne lii nga ci def mooy doxin wi ndax jàpp naa ni parti da ngay massifier parti da ngay jëli ñu ci nekkutoon nga indi leen. parti da ngay jël ñi mer nga jëli leen indiwaat leen te gis nañ boobu ba léegi sa taxawaay ak sa doxin ci loolu nga nekk. lay wax ne sëñ bi di la wax jigéen ñi ñu ngi leen wax ne dal leen ak jàmm yéen jigéen ñi dal leen ak jàmm yéen sunu gan yi ñu ngi leen ubbil buntu yi di leen wax ne asalaamaaleykum te di leen wax ne foofu ngeen tànn leader bi ngeen tànn foofu la. ndax kii nga xam ne mooy Cheikh Abdou Khadre Mbacké Gaïndé Fatma ñun jigéen ñi ànd ak moom amuñu lenn lu ñuy regretté ci moom amuñu lenn lu ñuy naqar ci moom dina dimbale jigéen ñi dina jàppale jigéen ñi utal nañu ay financement defal nañu ay formation mos benn jigéenam. ndax euh, bi ma wooyee Cheikh Abdou ñu ma dañoo bëgg a ñëw nga jàppale ko di soo de Seck mi nga xam ne euh, di gërëm Soda Seck ma nga xam ne moo dëkk Umul Xura di jaare ko ci Ibrahima mu ñëw yokkaloo ma Cheikh Abdou Mbacké ñoom aw ma seen fay waaw ginnaaw yàlla maanaam lii sax gisoo dara damaa bëgg nga ñëw Daaru Karim xaar yàlla ba nga xam ni. ay xale yu ndaw ñoo fa nekk du gëm seen bopp di am pas-pas ndax kenn ku ne yaa ngi ci dara di di dóor ndax mën mi di wax yow yàlla xam na ni damaa mujj obligé ni leen daje leen ko waa koñ bi ne ndax ma fi ma nekk dafa sori ndax damaa ne santé kon bu ma ñu daje fa ñu ñëw te gis naa li nga ñu doon dolli loolu lu ama am solo la man de dafa am ay qualité yoo xam ne dama koy téye nit te dafa nekk ci yow muy li ngay liggéey ci suuf te doo ko wax bari na lool macha allah parce que am na ay kilifa yu bëree bëri yoo xam ni fukki nit dong fuñ daje danañ fexe ba revue de presse ko moom mii nag dafay liggéey liggéey boo xam ne nii li muy liggéey dafa am solo trop dana woote xool ñi nga xam ne nekkuñu woon ci parti bi démb mu indi leen ñi génn mu indi leen dugg ci sañcaan yi fédéré et nous sommes prêts à collaborer activement avec vous pour construire un avenir prospère pour la Gassé de et pour le Sénégal. Ensemble, continuons cette marche vers l'avenir, vers l'avenir fort de notre soutien indéfectible depuis 2019 et avec la conscience aiguë des défis auxquels nous faisons face. En quelques encablures, de l'élection présidentielle de février 2024, les jeunes de Damas que Seigneur se disent déjà prêts à élire notre candidat, M. Amadouba, dès le premier coup.